Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Seine Radio à la une de l'actualité. personnes, dont des mineurs, des élèves placés sous mandat de dépôt à Saint-Louis après les affrontements de Guet-Ndar. Ces personnes sont poursuivies pour plusieurs délits. Maître Abatalib Gueye soutient que la police s'est trompée de cible. Les précisions À suivre dans nos éditions, colère des habitants de Nendori, département de Canel, les habitants dans la rue hier, ils exigent la restitution de leurs terres, accusent le maire de s'être accaparé de leurs biens. La démarche est bien légale, réagit le maire. Euh, de sérieuses perturbations dans la distribution de l'eau en zone rurale à Thiès neuf forages en panne, une nappe surexploitée, des récriminations contre le fermier Aquatec. Le ministre de l'eau a été interpellé lors du CRD spécial convoqué à Thiès. Et on se souvient ce 7 février de la disparition de Cher Ante Diop,

636 morts, plus de 31 475 personnes euh, infectées. L'actualité internationale, la page fort avec Elage Malinga et la revue de presse avec Rapsel Emmanuel, euh, Sud Éducation, pour compléter nos éditions mises en ordre par Alsan Watt. Les titres en wolof Elage Maodo Faye, salaam aleykum. aleykum salaam ajaratu Isenia mbokk yi asalaamaaleykum nu jottali leen bopp xabaar yi fanweeri nit ak benn yoo xam ni jàpp nañu leen. ay gone yu ndaw a nga ca fële ca ndar gannaaw ba nga xamee ne ca gétt ndar dafa am ay jàppante ci diggante nappkat yi nekk foofule ak itam alkaati yi kii euh, nga xam ne moo di maître Aba Talib Guèye daal fi ñu toll nii police ci boppam dafa mel na ñu waroon a jàpp jàpp leen dafa juum ca njàpp moomee daañu ci dikk léegi euh, ci biir xabaar yi. li aju tamit ci li nga xam ne moo aju ci ñi nga xam ne dëkk ca dëkk ba li nga xam ne moo di ndeen dóor yi wax nañu ne dañu génnoon ci biir mbedd yi démb li ko waral it dam ngir wane seenu naqar mooy seen suuf soo suñuy saax saaxee lañ bëgg ñu dellu yaat leen ko kiñ ca joxañ nag moo di maire bi nga xam ne moo nekk foofu li nga xam ne daal dafa mel dafa aaki mooy yëf yi dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi li aju tamit ci ay jafe-jafe am ci wàllu ndox moo xam ne nii daal nit ñi war nañ ko mën a jëfandikoo ah, ci biir béréb yi nga xam ne moo fi teg boor yu dëkk yi wër Thiès ci àll bi dañuy jur juróom-ñeenti forage yoo xam ni benn doxatu ci dañoo paan fi na toll nii nekk ci ay tolof tolof napp bi tamit fi nga xam ne tam fi la ñuy soqee ndox beeg suuf seeg yu demee noonu la foofee daanaka tam dañ ko saax saaxee daal ba nga xam ne mbir yi doy na waar loolu itam ci ak tumuranke la ñu jëm jëwriñ ji ñu gàllu ci mu doddam li aju ci wàllu ndox mi wax nañu ne daal itam am na sax ah, luñ ko joxañ buñ ko joxañ boobu war a mu war a yiy yàbbi ci mbir yooyu le am na CRD buñ ci di amal il y a tamit ci eh, juróom fii juróom-ñaari fan ci weeru février yi nga xam ne ci la ñu ne ci la ñuy fàttali ko faatu Cheikh Anta Diop nga xam ne ab savant la woon ko bari woon xam-xam la ak ay lijaasa fanweeri ak yàlla ak a ngi nii nag lan moo des ci loolee nga xam ne moo di ndonom ci wàllu xam-xam daañ ci dikk léegi daañ ci toftal itam xeetu tawat yi nga xam ne dafa tab bi fu mel ne tamit Mali ak itam yeneen gox yi itam ci réew Afrique nga xam ne daanaka nit ku boola dalee dafay daal di génnee ay deret ak yu demee noonu la daañ ci dikk léegi ak suñu nattoo yi ñu toogal fële ci Mali ak li ko wër li aju ci coronavirus bi li ci faatu fi mu toll li benn ko xaymaa tey dëppook juróom-ñaari fan ci weeru juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeent yooyu faatu nañu Euh, fële euh, ca euh, Chine ak li ko daal ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Bonjour et bienvenue. 45,73 tonnes de semences de en 2019 et 2066 tonnes de de développement d'une résilience à l'insécurité au Sénégal. Un projet financé par la Banque islamique de développement et de 14,5 milliards de francs CFA. Projet qui a pour à la réduction de l'insécurité alimentaire Toutefois, des lenteurs dans les délais de traitement freinent le projet, d'après le coordonnateur du DRICE. Cheikh Oumar Nous sommes un projet qui intervient sur cinq régions, dans le nord, dans les régions de Saint-Louis et de Matam, mais nous intervenons également dans les régions de Fatick, de Tambacounda et de Ziguinchor. Les difficultés, vous les vivez peut-être de manière atténuée dans certaines régions, mais ce sont des difficultés qui sont partagées par euh, toutes les régions du pays. Je vais juste insister sur un aspect. quand vous êtes dans un projet de résilience que dans qui va être un peu perturbé. Donc deux aspects importants de la chaîne de valeur, c'est d'abord la mise à disposition de semences de qualité. On aime bien parler de semences écrémées. L'un des objectifs des plus hautes autorités du ministère est d'éliminer ce concept et de ne proposer aux producteurs que des semences certifiées. C'est une différence de à par rapport au rendement. Les quantités sont assez importantes, mais ce serait un peu difficile de donner un chiffre global parce que ça n'a pas tellement de sens. Vous avez des spéculations pour lesquelles il faut mettre peut-être un kilo par hectare. Vous avez d'autres spéculations pour lesquelles il faudrait en mettre 8. Ce qu'il faut retenir, c'est que des efforts importants sont faits en termes de mise à disposition de semences, mais de création les conditions de pérennisation. Le principal défi pour nous, c'est le défi des délais de traitement des dossiers obtenu à ce niveau des améliorations très sensibles, mais nous aimerions que cela aille encore mieux et plus vite au bénéfice des populations donc, qui attendent ces réalisations-là. Malgré ces difficultés, le Sénégal est deuxième parmi les six pays qui déroulent ce même projet, selon Youssou le directeur des bassins de rétention et lacs artificiels au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous sommes deuxième parmi les six pays, malgré les difficultés liées aux longues procédures de non-objection et de traitement des dossiers. nous en réjouissons. Professeur Moussa Baldé, dès son arrivée au niveau du département, a comme communication autour de la résilience. Parce que nous sommes dans l'avènement des changements climatiques. Il y a une présentation de toutes les composantes. Nous avons des résultats détaillés malgré les difficultés qu'on a. Et il y a beaucoup de dossiers en stand-by, dire des marchés qui sont lancés et des ordres de services qui sont délivrés. Donc nous espérons qu'en le projet va aller crescendo et les résultats espérés seront atteints. Les propos de Cheikh Oumar toujours d'agriculture avec le Fonds international de développement agricole qui organise un atelier régional sur le financement climatique dans le secteur de l'agriculture. Cette rencontre va se tenir du 10 au 12 février à Dakar. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue. Deux cas suspects de coronavirus enregistrés à Accra selon les autorités ghanéennes. Il s'agit de deux ressortissants étrangers mis en quarantaine dans le plus grand hôpital universitaire à Accra face à l'apparition du nouveau coronavirus en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé renforce la préparation, indique l'agence panafricaine de presse. Célébration hier de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, malgré la loi qui criminalise l'excision, à Sédhiou, il y a encore des communautés qui la perpétuent pour réduire la prévalence et éradiquer à terme cette pratique. Les techniciens de santé maintiennent l'alerte sur les conséquences jugées dramatiques

de trouver un mari. Sur le terrain de la sensibilisation, ces moniteurs font face à la résistance des exciseurs sur fond de menaces et d'injures à jeter Omar Bachi. Des menaces, des injures, on a entendu. Quelqu'un est allé dire la coordinatrice régionale du réseau Sigil Digen de Sidiou, la pratique a quelque peu baissé en raison, dit-elle, de la synergie dans la croisade. La tendance actuellement est à la baisse, compte tenu des les acteurs l'Union a déployé. Cette croisade ne sera pas du tout facile en l'absence de dénonciation, selon le préfet de Sédhiou, Ibrahima Fall. C'est l'absence de dénonciation. Pourquoi c'est difficile un peu euh, d'avoir le flagrant délit dans ce domaine. Et souvent, les conséquences sont dramatiques, rapporte Oumikiam Diata, la maîtresse sage-femme du centre de santé de Morikunda. Lors des accouchements, on voit que pour les femmes excisées, il y a plus de risques il y temps des déchirures périnéales. Même s'il y a une dynamique communautaire dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, le chemin de l'abandon semble encore long, surtout avec les religieux musulmans sous la houlette de l'imam Ratib Elhaj Boubacar qui encourage la pratique au motif qu'elle purifie la femme. Moussa Dramé

Une démarche légale réagit le maire et puis de sérieuses perturbations notées dans la distribution de l'eau en zone rurale à Thiès, neuf forages en panne une nappe surexploitée des récriminations contre le fermier Aquatec le ministre de l'eau

475 infections au confirmé. Bonjour à tous, Alsan assure la mise en onde de cette édition. Affrontement entre pêcheurs et forces de l'ordre à Saint-Louis, 31 personnes placées sous mandat de dépôt. Elles sont poursuivies pour plusieurs délits, destruction volontaire de biens appartenant à des particuliers et à l'État, violences et blessures volontaires causées à des membres de la force publique. À Saint-Louis, le dispositif sécuritaire reste maintenu, Yves Elles sont en tout 31 personnes à avoir été déférées dans la matinée de ce jeudi à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Il s'agit en effet des personnes qui avaient participé à la manifestation des pêcheurs mardi dernier et lors de laquelle elles ont été interpellées par la police. Elles sont poursuivies pour avoir pris part à une manifestation non déclarée sur la voie publique, un attroupement sur la voie publique, la destruction volontaire des biens appartenant à des particuliers, la destruction des biens appartenant à l'État car ayant bougé des véhicules de la police. Il s'y ajoute aussi les violences et blessures volontaires causées à des membres de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et la commission d'actes de vandalisme, entre autres. interpellé par la police dans la matinée au niveau du quartier de Guetnar où il était parti pour tenter une médiation au sein de cette communauté de pêcheurs. Le colonel de l'armée à la retraite, Abdourahim Kebes, a été finalement libéré dans l'après-midi. Cependant, le dispositif sécuritaire est toujours maintenu dans cette zone, notamment au niveau du pont Moussaf Malik Gay qui est toujours fermé à la circulation. Des forces de l'ordre qui ont été dernièrement renforcées par C'est ainsi qu'aucun rassemblement public n'est autorisé sur l'île et également au niveau de la langue de Barbarie. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tandeng, 31 personnes euh, placées sous mandat de dépôt, décision vivement criée par l'un de leurs avocats qui affirme que ce dossier aurait dû être jugé en flagrant délit. Maître Abatalib Gay nous explique au micro de Yves Il y a eu 31 personnes qui ont été interpellées, dont mineurs et majeurs. Voilà la dichotomie, la composition de ces personnes. Il n'y a que pêcheurs. Et parmi les pêcheurs, il y a un et 3 majeurs qui n'habitent même pas Saint-Louis. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont venus de la Casamance, qui sont venus d'ailleurs, qui étaient là que pour travailler. C'est pourquoi d'ailleurs ici vous n'avez pas vu une grande affluence parce que s'il y avait 31 personnes qui venaient de Guendar, vous auriez une affluence moindre. Ensuite viennent les élèves. Il y a même un élève qui fait la cinquième au lycée, lycée Pétavin, au lycée Pétavin, des ambulants, des apprentis pour les cartes frigorifiques qui, qui viennent prendre le poisson, des receveurs tata, des élèves école coranique. De sorte que si on fait par rapport à tout ce qui lui ont pris, force est de constater qu'on a ramassé des gens qui n'avaient absolument rien à avec les incidents qui se sont formés. Parce qu'en fait, les incidents opposaient ce qui était au niveau de Gendar, mais il n'y a personne qui a été interpellé au niveau de Gendar. Ceux qui sont interpellés, c'est particulièrement dans l'île, n'est-ce pas, des gens qu'on a ramassés. Et ce que nous regrettons, même si nous molestés, dont l'un est un tailleur, l'autre un élève et l'autre un bateau. C'est pour dire qu'en définitive, qu'on s'est trompé de cible. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on a visé une infraction criminelle. C'est pourquoi le dossier est à l'instruction. Un dossier qui aurait dû être en flagrant délit. Pour la simple raison qu'on dit qu'il y a une habitation qui a été brûlée. Ce qui est archi faux. Parce qu'en fait, il n'y a aucune habitation qui est brûlée. Et honnêtement, cette affaire ne méritait même pas d'aller à l'instruction. C'est un dossier de flagrant délit. Et un tel dossier de flagrant délit, parce que faire est de constater que les 31 personnes qui ont été appréhendées, en définitive, n'ont rien à voir avec ces incidents. Une partie de la commune de Ndendori en colère dans la rue hier pour exiger la restitution de leurs terres. Ses habitants accusent le maire de s'être arbitrairement accaparés de leurs biens. Le maire réfute et soutient, voire délibéré en toute légalité, les précisions avec Abdourahmane Diop. Le domaine est en passe d'exploser le tissu social dans la commune de Ndendori, département de Canel. Des populations très remontées contre leur maire ont battu le macadam ce jeudi pour exiger la restitution de leurs terres. Mamadou Diawara est un des Il y a nos terres que les gens veulent récupérer la commune de Ndondori en personne, c'est lui qui va en profiter pour faire un personnel. Pour nous, on ne va pas laisser faire puisque lui, il veut utiliser toutes ces terres-là pour faire ses affaires. Donc euh, ça, ça ne peut pas marcher. Et ces populations en furie, composées à majorité des personnes du troisième âge, se disent dépossédées de leurs terres frauduleusement. Ainsi, après avoir épuisé toutes les voies de recours, elles vont désormais passer à la vite supérieure et aller au sacrifice suprême pour recouvrer leurs propriétés. dem nañ ci nguur bi bu ñu sonn dara léegi nag fii la ñuy taxaw du tabax bu ñu paree fii lépp li mu def fi dañ koy dindi ci wooyu yëpp dañ koy dindi et puis dañuy baare tali bi ba ci dara ba ñuñ ci dee ba ci dem kaso ba ñuñ ci dara Le maire Bassirou Doroli présentement à Dakar a réfuté toutes ces accusations et soutient avoir inscrit sa démarche dans la légalité la plus parfaite. Qu'on a en train de construire là-bas, ça appartient pas à, à maire, ça à commune de Lindor, ça pas à maire. Maire n'a rien à avec ça. En cas, à a communes du village de Mounaré t'appartiennent. Je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas là où se trouvait, il y a maire, où ça à maire. Il faut rappeler que les manifestants emportés par leur colère ont barré la route nationale avant que la gendarmerie, sans affrontement, ne vienne remettre de l'ordre. Matam Abdurrahman Dien Sud FM. Neuf forages en panne nappe euh, est surexploité dans la région de Thiès et de nombreuses récriminations contre le fermier Aquatec, la gestion de l'eau en zone rurale largement évoquée hier en présence du ministre de l'eau au cours d'un CRD spécial

40 Le ministre de l'eau n'est pas surpris par les récriminations. Nous avons eu beaucoup de récriminations des populations concernant Aquatec. Face à ces récriminations, nous avions convoqué une première réunion d'abord pour leur exiger ce qu'il a nous allons évaluer et prendre les, mesures qui, s'imposent. Quatre tours d'horloge pour passer en revue les questions de l'eau et de l'assainissement dans la région de Thiès. Le ministre Serine Baïtia, entouré de ses collaborateurs face aux acteurs concernés s'engage à apporter des solutions aux problèmes soulevés, surtout à organiser de larges concertations pour l'évaluation de la réforme. Babacar Ndao, Babacar Ndao, signalons que les travailleurs de Sen'Eau étaient en assemblée générale hier à Dakar. Les travailleurs demandent au chef de l'État

Voilà donc 30 ans que disparaissait le professeur Cheikh Anta Diop, Selon le professeur Diallo Diop du RMD, le message est l'ec du euh, penseur et savant sénégalais demeure une actualité euh, brûlante avec la question de la sécurité de l'unité africaine et de la place du continent euh, dans le monde. Réaction à suivre tout à l'heure dans la seconde édition. L'actualité au Mali avec la fièvre hémorragique Crimée Congo, une nouvelle épidémie confirmée au Mali la semaine dernière, plusieurs morts et de nombreux d'autres euh, cas confirmés. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Souri Ibrahim Maïga. Maladie contagieuse a déjà fait sept décès et plus d'une dizaine de malades. L'information est révélée par des agents du centre sanitaire communautaire de la commune de Kurumbana qui ont alerté de la détection de cette fièvre hémorragique appelée Crimée Congo dans le de Kera plus précisément. En effet, l'épidémie serait détectée chez un berger quittant un autre village appelé Kunari. Il souffrait, selon les informateurs, de graves fièvres, de vomissements et d'une diarrhée grandissime marquée de saignements. La victime meurt aussitôt transportée au CESCOM. Affectés par la maladie, les quatre accompagnants du défunt à l'hôpital sont également décédés. Après, neuf autres cas susceptibles sont découverts qui sont par ou deux seront confirmés après prélèvement. Mais deux perdent la vie parmi les neuf transférés. Les autorités sanitaires de la zone rassurent que la situation est sous contrôle et que les décès enregistrés sont enterrés selon les dispositions sécuritaires recommandées. Depuis l'annonce de la nouvelle le samedi 1er février, des campagnes de sensibilisation sont engagées et des mesures de protection sont en vigueur pour éviter l'expansion de cette

le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. Parmi les nouvelles victimes euh, du coronavirus figure l'un des premiers médecins à avoir donné l'alerte quant au danger du nouveau euh, Le taux de mortalité euh, tourne autour de 2% et reste encore inférieur à celui euh, du SRAS. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a ajouté que 3143 cas de contamination ont été recensés au cours de la journée de jeudi portant ainsi à 31 161 le nombre de patients infectés euh, par le virus en Chine. Un nombre croissant de villes en Chine impose d'ailleurs à leurs habitants de rester euh, confinés. Fin de cette première édition merci de l'avoir suivi. ñaari waxtu mbokk yi moo jot ca Cilma ko Mbakol moo jotit ca Ndaari Paleen ci diir bu gàtt nu dellu si am yeneen jukkil leen xabaar yi. weeri nit ak benn yoo xam ne yi wax nañu ne dañ leen a jàpp fële ca Ndar gannaaw ba nga xamee ne euh, buur teg na leen loxo ay gone yu ndaw <coughs> ngeen baal a ngi ci te gétt Ndar wax nañ ne itam sabab yi mooy. Euh, fii nu toll nii am na ci daal lu police def jàpp leen ndax jàppante yu fa amoon maître Aba Talib Guèye ne ñi police jàpp de yi dafa mel ak njuum te def caa tab bi daañu ci dikk léegi ci biir xabar yi. ñu mer te nekk ca dëkk ba la nga xam ne moo di ndóor yi wax nañu ne foofu dañu génn ne daal itam seen suuf si nga xam ne dañ koy saax saaxee warees na leen koo delluyaat seen jënd yooyu yëpp jot nañ ko jël daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi wàllu joxe am ndox itam am ko ci Thiès ci dëkk yi nga xam ne ñoo ko gétti lu doy waar la juróom-ñeenti forage ya fa nekkoon ci wër leen yooyu yëpp a paan daañ ci dikk léegi daañ ci toftali tamit juróom-ñaari fan ci weeru février bi dëppook tey jii boobaak léegi toll ci fanweeri at yàlla ak ñeent la Cheikh Anta Diop faatu woon génnoon àddina daañ ci dikk léegi daañ ci toftal incha allah yeneen yi xam yi am ngeen eh, jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu nu daal di doore xabaar yi ci jàppante yi amoon fële ca Ndar diggante nappkat yi ci gétt ndar ak alkaati yi am lu ca loru am ñun ca taal ci ay gaal yàq fa ay bërëb yu bare bari police jàpp ci fanweeri nit ak benn yoo xam ni wax nañu ne sax ay mineur ay gone yu ndaw a ngi ci ndax itam mbir yi indi woon sax ñooñ am nañ ci ay gaañu gaañu Yves Tendeng ñoo ngi toll ci fanweeri nit ak benn ñi nga xame ni yóbbu nañu leen ca kaso ba tey ji ci alxames gi ginnaaw bi ñu leen présenté ba noppi ci kanamu procureur muy nit ñi nga xam ne ni ñoom la police tegoon loxo keroog ci talaata gi ginnaaw bi ñu doon jàmmarloo ak alkaati yi ci bisu manifestation nappkat yi ñoom ñu lee daanaka bokk na ci li ñu leen toppee moo di rek dañu daal di amal doxub ñaxtu ci kaw tali bi te kenn déclaré ko waaye it amal dajaloo ci kaw tali bi te kenn autorisé wu leen ñu daal di itam yàq alalu jàmbur yàq alal bu nga xam ne ni état moo ko moom ginnaaw bi ñu yàqee yenn ci oto waa police waaye itam bokk na ci xeetu fitna bi nga xamee ni def nañ ko ci ñenn ci ñi nga xamee ni ñoo ngànk kaarange gi ginnaaw bi nga xamee ni gaañ nañu leen keroog ci jàmmarloo bi te ñoom defuñoon leen lu dul seeni liggéey maanaam sàmm kaarange askan wi ak it seeni alal kii nga xamee ni mooy colonel bu à la di Abdourahim kebe mi nga xamee ni alkaati yi tegoon nañ ko loxo ci suba si foofu la ca quartier bu Guet Ndar fi mu demoon ngir dox jàmm daanaka mujjee nañ ko bàyyi ci ngoon fii jamono ji lii di dispositif sécuritaire bu nga xamee ni waa police amal nañ ko depuis ci talaate gi daanaka mu ngi woyandi ba tey jilee ñoom ñu lee sax daanaka ñi nga xam ne ni ñooy gendarme ñëw nañu leen renforcer ci taxawaay bi nga xam ne ni ñoo ngi koy taxaw ngir sàmm kaarange gi alinimel waral sax te alinimel waral sax alinimel waral sax jamono ji ñoom dañu tere bépp dajaloo bi nga xam ne ni ay nit namm nañ ko dajaloo ci diwaan gi rawatina foofule ca Langue de Barbarie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 te licence yi concerné leen surtout ak seen i famille peut-être ak jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre <coughs> xam nga kon ku ñu jàpp war na nga doon koo xam ne daf pêche bi daf la intéressé wante li nga xam ne fanweeri nit ak benn ñi nga xam ne yëpp entendre nañ leen te bu leen juge d'instruction yëpp ku si ne dama ko fekki wax fi nga dëkk wax sa âge wax lan ngay liggéey bi ñu seetee ñeent rek ñoo ci napp te ñeenti ñi ndapp kenn fii ab mineur la xaleel la ñetti ñi dëkkuñu sax ndar ñeneen li mooy di lan ay ñoo xam ne dañuy jàng alquran bari na ci ñoo xam ne ci daaru laaji maxim bi ci tàkkal dex gi ndax ñi ñu ëpp ñu jàpp jàppewul leen côté gendar ak yooyu de ñi leen jàpp fii ci loodo maanaam daal dañ doon seet ñi nga xam ne mu mënuñu jot ci ñun soxla ñu teg lox ci duñ mën jot te ñoo xam ne doonoon si dara ndax bu ñu seetee ñenn ñi ay mason lan ak ñu doon liggéey ci oto jën yi même am na ci ay receveur te dama ne am na sax élève boo xam ne lycée technique lay jànge cinquième lay def boole nag ak ñoo xam ne dégg nga doonuñu ci dara li ma ciy naqarlu nag mooy malgré que nag affaire bi lu metti la ndax bu doon suñu sago du xew ci dara wante am na ci ñetti ñu lu dóor ñoo xam ne yàlla xam na ne kenn ki bi ma xoolee lan la te ab tailleur la boo xam ne ci marché Ndar la de keneen ki ab élève la man li ma mënul comprendre moo problème bii par rapport ak ñii ñu jàpp ak ni mu demee ñu ne dañ leen di yóbbu cour d'assises ndax liñ leen topp c'est criminel looloo tax ñu yóbbu ko ci inspection dossier bi au plus xëy na dossier flagrant wu doon délit ñu xool ko ci ne sa responsabilité te doon réew kon yu ñu jàpp léegi nag ñoom ñëpp def nañ leen ci mandat de dépôt dégg nga te xam ngeen ni mandat de dépôt buñ ko defee ci instruction instruction du loo xam ne day gaaw te man mu wér ma ne wax naa da dama condamné incident yi mais du mu wér ne ñii nga xam ne ñëpp dañ leen jàpp ñoo xam ne doonul ci dara ñi nga xam ne jàpp nañ am na jàpp nañu leen am na ci ñooñ dootuñu duñ ci dara lool la met met Aba Talib Guèye rotale ay kàddoom du ñàkk ñu del seet ci ci i jamono gën a topp xabaar boobule li aju yi tamit ci askan wi dëkk fële ci commune bu Ndendoor yi wax nañu ne foofa day dañoo mer ba futti sax faf dañoo génn ci biir mbedd yi gur gurgur seen bopp jar ko it ba mu nekkum lim ñuy daagu wane seenu naqar ndax kañu joxañ nag mooy maire ba ndax daal nee ñu seen àll la wala seen suuf suuf si yëpp daf koy saax saaxee Abdourahmane Dieng. ñenn ci askan wi yeewoo ci commune Ndindoor yi dañoo mer ba photo ndax dañoo jàpp ne kii du meeru dëkk bi dafa jël seeni suuf daal di koy jox ay nitam ak ki mbokkam. maire bi bu muy waaj a jël suuf bi am ñu dem ci moom man ci laa bokk. sama najaay borom téere bi ci la bokk ñu dem ci moom mu ne du wax ak kenn li mu nar a def ku nakari dina ko def kenn mënu ci dara loolu la wax kenn mënu ci dara léegi nag mu ngi commencé def ça fait depuis cinq mois dem nañ ci sous préfet quatre fois dem nañ ci préfet cinq fois déposé nañ ci préfet soixante sept convocation bokku ci dara te fu mu nekk ni dafa jaay moom moom maire li mu am fi ëpp na dix sept terrain ñaxtukat yi nag daanaka ay borom kër lañu ndax ci gën kaa néew ku ci nekk war naa juróom fukki at wante gannaaw bu ñu sàkkoon ndimbalu kilifa yi jàpp nañ ne lenn desul lu dul ñu xeex bu jëree sax ñu rotal seen i bakkan ngir daal jotaat ci seen i suuf. dem nañ ci nguur bi bu ñu sonn waxuñu dara léegi nag fii la ñuy taxaw kenn du tabax bu ñu paree fii léegi lépp lu mu def fii dañ koy dindi ci wooyu yëpp dañ koy dindi et puis dañuy baaree tali bi ba ñu ci dara ba ñu ci dee ba ñu ci dem kaso ba ñu ci dara. muy ay kaddu yu wute loolu ak kaddu yi nga xam ne moom la meeru dëkk bi daal di yëkkati kii di Mamadou Ly gannaaw bu ñuy jokkoo moom mu ñuy xamal ni def lu dul doxal yoon dañu doon def lotissement man def naa réunion ne naa ku fi mos a am tool wala ku fi mos a am kër na indi demande am déposé ko foofu léegi lotissement la nekkutul man maa fi moomoon wala suma maam moo fi moomoon mosoon naa fi béy loolu amatul ku fi bëgg am kër amoo papier demal commune nga nga def sa demande amul foofu benn kër bi nga xam ne borom yor na foofu mos na am foofu papier yu valable nga xam ne mos na ko moom mosoon naa fi béy suma maam mosoon na fii bëy man boobu sa wax mënu ma ko comprendre. yi la ñaxtukat ngir fasal seen i naqar jot nañoo baare tali bi ci ay simili ngir dal di wane ni kontaan nañu benn yoon te bëgg nañ njiiti réew mi wallu leen. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane Diène juróom ñaari waxtu fi mu toll nii dem tembe moo dem ba feggoog lenn ci li juróom benn minute fële nga xam ne moo di ca. Euh, yamoo ñoo juróom-ñeenti forage yi forage yoo xam ne teeni tubaab yooyu dafa jekki-jekki na paan ci li wër Thiès ba tax na loolu ci àll bi ndox mënatuñ ko am am na nag ñu ne ci juxañte tamit am na tamit ndox mi nuñ koy jëfandikoo goo xam ne gi dafa ëpp sax CRD sax buñ ci amaloon jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox mi kët nee ñu war naa yi yebbi ci loolu Babacar Ndaw ay jafe-jafe yu tar la ñu nekku si wàllub joxe ndox bi si biir diwaanu Thiès rawatina si dëkkub àll yi tey jii yëpp ñi nga xam ne ñoo si yëngu dut na si baaraam fii ñu toll juróom-ñeenti forage dañoo paan bokk na si forage bu Kër Madaro Kirène Mbalam Son Thiaye Sun Séeréer Ngati Yaram si commune bu Ngandiouf Serigne Mbaye Thiam di jëriñ bi njëkk wàllub ndox nag assainissement ne ay la yoon loolu moom lu wóor la waaye nag ragal na ne sa solution bi du léegi ne dañeen xaar li nga xamante ne moom mooy si budget BCI bu 2020 bi dañoo nekk en panne directeur général lu OFOR nee na leen forage yooyu def nañu appel d'offre yi ñaar fukki fan ak juróom ci mois de février ci la ñuy xam entreprise bu nekk njëg ban la def pour ñu defaraat forage yooyu. leneen loo xamante ni dut nañ ko baaraam forage yu bare naam am ngi si diwaanu Thiès waaye yu si bare dañ koy manque di ko yóbbu si yeneen diwaan yi loolu nag ñu ragal ne ak menace bu fës. Euh, ndox mi nga xam ne mooy jógee ci biir suuf si forage yi ni koy manqué xëy na dana am lu muy jural euh, région de Thiès foofu dalal nañ seen xel. ne leen euh, usine Kër Momar Sarr numéro 3 bi ñuy def mu war a indi loo xam ne lii dana toll ci ñaar téeméeri junni ci mètre cube ay ndox mu ñaar téeméeri million ci ay litre ndox yëpp duñ ko jël yóbbu Dakar daf ci am loo xam ne lii dañ ko jagleel fii. Ah, bu dee keneen koo xamante ne tey jii ci ndaje service spécial bi ñu amal Thiès la ñëpp joxoon ak waa Teg. bi nga xamee ne jooytu yooyu am na oo nañ leen ah ñoom jël nañu ay engagement yoo xam ne nee nañ danañ ko def. ci ci fay nit ñi ci délai ci toppatoo affaire u électricité bi euh, ak toppatoo euh, forage yi su paanee ñu koy def wala ñu koy defaraat ci lu gaaw ñu ngi leen di leen di surveiller ci engagement yooyu ñu def wax naa leen ne diir bi su jotee su fekkee ne engagement yi respecté nañ ko xaarit ñu continuer su fekkee ne ñoom gis nañ ne mënuñoo respecté engagement yi su boobaa gouvernement bi dana jël yeneen dogal waaye li nga xamante ne tey jii jëri yokk na si yaatal waxtaan yi dafaat évaluation xayma wala réforme ndox wax bi ngir tey jii ñu jooyanti lu bare Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax juróom-ñaari fan ci weeru février 1986 juróom-ñaari fan ci weeru février 2020 fanweeri at ak ñeent a ngi nii euh, professeur Cheikh Anta Diop bi mu faatoo ba suñu jën yàlla te jii ñu koy jëmmal ak fàttalikuwaat nag ñi nga xam ne tam ñoom ñu ngi woon ci am njàngaleem ak itam di ko xalaatal nekk tamit ci ak langam ci wàllu politique ci RND euh, kii nga xam ne moo di professeur Diallo Euh, moom bu RND dikkaat na ci Cheikh ne daal li mu fi bàyyi woon ba léegi actualité la rawatina ci wàllu boolog Afrique ak itam wàllu kaaraange ñu déglu ko ci micro Moustapha Dieng. de ci wàllu tabax am réew ak yor nguur ndaxte nguur ci boppam moo waroon rek Cheikh téere boobu dafa ne euh, fii ak Afrique bennoowul rabowul ba di waxe benn baat taxaw wane benn jëmm ba noppi man koo ërfoo rabbo ba nga xam ne kenn du ñu xajatle feeg Afrique deful loolu day dellu ginnaaw te dellu ginnaaw bi weesuwul mel ni Amérique latine ni mu meloon loolu la wooyee sud américanisation nee Afrique dafay fédération mbaa mu sud Amérique léegi am na euh, juróom benn fukki at bi mu waxee loolu bi mu bindee loolu ak tey xoolal Afrique tey la wàlloo gën a aay te li li firndeel ne sud américanisation wu Afrique bi mooy cocaïne bi nga xam ne law na ci Afrique yëpp. ci côte hmm. bi. ñu fi jàpp rek Sénégal mais fépp la. lu jóge ci Angola ba ci Maroc. yàggul sax dégg naa ne yegg na France. kon France ci boppam mu ngi koy ñu ngi koy sud américanisé ndaxte ñu ngi koy cocaïne mais loolu sàggal weesul loolu weesul foofu. léegi li ciy pexe mooy dellu ci li Cheikh Anta waxoon. xam ne xalaatam ci wàllu àdduna xam-xam wér la. ci wàllu kaaraange kaaraange Sénégal. boobu tamit waxoon na ko nee na waxoon na ne euh, euh, euh, kaaraange moo jiitu tabax am réew ndaxte faw jàmm am. ñit ñi ne seen xel dal pour ñu mën a liggéey seen réew. waaye su nga xam ne dañuy dañuy boom ñit ñi di rajaxe armée yi mu nga noonu te terrorisme lu ko indi Afrique kenn mënul weddi ne bi ñu daanale Kadhafi bi français yi anglais yi ak américains yi dal ci kaw Kadhafi ba boom ko daaneel nguuram ci la saay-saay yi jógee ak Libye ak seen i gànnaay ñëw dugg Niger Mali ak yegg léegi Burkina Faso waaye kenn mënu weddi tamit ko waa Burkina Faso li leen dal ni musiba bi leen dal li ñu jàq Compaoré moo leen ko jural moo leen ko indil jamono yi Compaoré toogoon foofu di fa nekkal tubaab yi ak di yàqal ñoom Laurent Gbagbo ak ñoom seen boobu jàmm rek la moom ci Burkina Faso loxo kon tubaab ba léegi mu ngi ci Afrique di ñoom ñoom ñoom ñoom ñuy féewale maa dem ci wàllu tàggat yaram jërëjëf Maodo asalaamaaleykum ko jëri wàllu karaté championnat compétition dootee ji nag ci àjjuma ji ca Maroc champion d'Afrique bi di Mame Amina euh, Diané moom kat ci catégorie mooy 68 kilogrammes dina défendre titre am ci comité Maguette Mbaye ak Mariam Sarr tam dinañ bokk ci jongante yi ci kata senior homme et dame Euh, kii di Omar Diop ak Awa Faye dinañ euh, dugg ci jongante yi championnat d'Afrique yooyu nekk dina tax ñu am ay poñ jëm ci wàllu jeux olympiques yi Sénégal ñaar fukki combattant ak juróom la yóbbu yëf na dina jeex incha allah rabbi ginnaaw suba ñu wax ci wàllu pétanque ak quatrième édition 112 heures de Saly war a door nag te ci àjjuma ji lu toll ci rek 300 participants ñu leen gis nga ni ko bëgg a defal ngir rek fexe ba li nga mooy euh, wàllu pétanque daal di dox fii ci biir Sénégal François Fara Ndiaye mooy initiateur bi ci micro Moustapha Sall. avancé na pétanque bi avancé na avancé boo xam ne maintenant au niveau Sénégal ràññee nañu ci bépp pays Afrique on peut buñ mun ci dem mu champion du monde buñ mun ci dem buñ indiwul. ci médaille d'or ou médaille d'argent nañ indi benn médaille médaille bronze mënuñ jàkk dem te duñ indi médaille moom bu ko liggéey ci loolu mu gën a dox mu gën a avancé et puis di ñaan aussi suru gouvernement bi jàppale ñu ci loolu jàppale ñu ci terrain comme lu ko suñu président bi waxoon Gassane Izzetine boulodrome boulodrome moo ñu manqué hippodrome pour avoir ñu wax ne mën nañ leen former mën nañ leen jàppale mën nañ leen taxaw mën nañ leen préparer pour euh, pour ñu doon champion ëllëg événement bi sept le 9 février et puis dëkk yëpp yi ma doon wax dëkk yëpp Afrique dañuy ñëw ay les champions de qui viennent ñu wax si wàllu football ak léeg-léeg jigéen yi nga xam ne nag dañu bokk ci jongante fois daam yi war a am euh, fële nga xam ne moo nekk ca Libéria du Sierra Leone du 25 au 7 mars ginnaaw Sénégal Sierra Leone am na yeneen juróom benn dëkk yu ci bokk bokk na ci nag Libéria Gambie Mali Guinée Bissau Guinée Conakry ak Mauritanie gay ni sax ñoom démb lañ jeexal stage yu juróomi fan loolu nag APS moom moo ko bëral ci neuvième journée Ligue 1 bi la wax ak tamit lu jëm ci wàllu programme bi bokk na ci nag euh, li nga xam ne moom moo jëm ci jongante yi Teungueth FC Mbour Petite Côte Dakar Sacré Cœur euh, Niary Tally Diambar Jaraaf dimanche Casa Sport Cneps Excellence euh, Douane Ndiambour Stade de Mbour Génération Foot Gorée ak AS Pikine ci Ligue 2 bi nii la jongante yi tëddee Renaissance AJ Fatick Sonacos Amitié FC Jamono Fatick Demba Diop Wakam euh, ak Guédiawaye dimanche Africa Promo Foot Duc Kër Madior ak Thiès FC euh, ba tey leen lundi lay jeex ci diggante li nga xam moom moo nekk nag wàllu port ak Linguère dañuy wax ci kuréel gi nga xam ne nag moom mooy sarkal Abdoulaye jaw tey ji nag amal nañ conférence de presse kuréel googu nag bokk na ci ay footballeur ak tamit ay journaliste war a def conférence de presse tey ji dañ koy jeexalee Espagne ak lu jëm ci coupe du roi Barcelona ak Real yëpp toog nañ jëm Atlético moom moo gagné Barcelone benn bal ci dara waxtu boo xam ne tamit Real Sociedad moo gagné Real Madrid ñeenti bal ci ñett Hadj Maodo